mbokk yi ñu ngi leen di nuy di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi seen émission li ci penc mi tey nag euh, seen télévision Futur Média ci lëngoo ak euh, délégation Union européenne euh, di leen baaxee émission bu nu jagleel wàllu environnement alam gi Sénégal ak càmmte gi fu nu ci toll jéego yi ñu ci def li nga xamante ni moo ci des ak nees mën a def ba ay jubbanti am ci ba environnement bi doon bu sell ànd ak yi ngëneel ngir sunu dund goo xamante ni dina mucc ayib ndax ku ne xam nga ni bu nu nee environnement niw koom-koom euh, moo waral kon ñu ànd ak union européenne union européenne mooy mbootaayu réew yi nga xamante ni ñooy réew Europe yi euh, kon seen seeni ndaw fii ci Sénégal la lëngoo beeg TFM waral waxtaanu tey bi ci wàllu kon protection de l'environnement euh, ñu ngi ci plateau bi ak monsieur Racine Kane Racine Kane chef de mission la ci union internationale pour la conservation Euh, de la nature UICN sëñ kan ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax te waaye. lay nuyu la laaj jërëjëf professeur Adamsou Tijani euh, fondateur bu institut des métiers de l' environnement et de la météorologie euh, moom it mooy responsable master professionnel ci wàllu environnement professeur Tijani ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di fay El Hadj sax jërëjëf euh, ay Aïssatou Diouf euh, moom euh, mooy responsable chargé de plaidoyer ci wàllu environnement ca indaa soxna Aïssatou maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay El Hadj Assane. nuyu également madame Gogo Banel Ndiaye conseillère technique ca ministère de l' environnement développement durable madame Ndiaye ñu ngi lay ziar. maa ngi jërëjëf ñu ngi ànd également ak monsieur Adama Diouf Adama Diouf président bu union association élus locaux yu Sénégal sëñ Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax. Eh, maa ngi lay fay Ndiaye. jërëjëf euh, ñu ngi ko wax wàllu environnement euh, d'abord euh, balaa ñuy dugg ci li nga xamante ni mooy ni nu agressé sunu environnement ci wàllu doxalin yoo xamante ni xëy na yu indi safaan la ci ñu war ci indi jubbanti dañuy xool ak nguur gi déjà ministère environnement madame Ndiaye conseil technique nga fa lan lañ defagum ne ay jéego ci wàllu càmbateeg environnement bi Sénégal. maa ngi leen di nuyu El Hadj Assane di nuyu téléspectateurs yi. Euh, di nuyu ñu ma fekk ci plateau bi benn sama professeur Tijani moo jàngal ci université de Dakar fii euh, di wax ni protection de l'environnement bu ñu ko buggee wax il faut ñu wax sénégalais yi euh, lan mooy lan moo ëmb protection de l'environnement mhm. xam nga ni protection de l'environnement pàcc boo xamante ni la constitution daf ko jagleel sénégalais yi constitution bu bees bi mhm. dafa jagleel sénégalais yi ni dañu am droit ci environnement bu sain PSE ñëw plan Sénégal émergent bi nga xam ne mooy cadre de référence ou politique de développement euh, économique du Sénégal ñëw tamit ci benn ci ak yi daal di ñu reconnaitre le droit au développement durable <coughs> donc ñu boole ñaar yooyu ñu wax Sénégalais yi protection de l'environnement mooy naka la ñu mën a def mm-hmm. ba euh, suñu dëkkuwaay sell nga xam ne lu ñu bëgg def itam ci dëkkuwaay yi du am benn conséquence ci suñu santé du am conséquence ci suñu wér-gu-yaram ci ci ci ci ci ni ñu dëkkee mm-hmm. donc euh, ci biir ci euh, buñ ko jaglee buñ ko euh, constitution jagle sénégalais yi nga xam ni seen droit la mm-hmm. dañu ko dénk ministère de l'environnement parce que xam nga ginnaaw bu vision bi buñ ko dindee dañuy def lettre de mission jox ko ministre de l' environnement et du développement durable mu daal di war a mën a doxal politique yi <coughs> donc ci biir loolu xam nga ne environnement ministère de l' environnement kese mënu ko doxal dafay collaborer ak yeneen acteurs yi <coughs> mooy mooy euh, les collectivités locales mooy les associations mooy les ONG et cetera mooy le secteur privé également donc ci biir loolu pour mettre en œuvre euh, protection de l' état bi dafa jël ay instruments. Mhm. ay instruments yoo xamante ne mun naa leen tuddee ay plan ay programme ay stratégie si ay domaines yu bare environnement nag boo ko déggee suuf saa ngi ci. Mhm. jaww jaa ngi ci géej gaa ngi ci et cetera et cetera ci ni ma ko mën a euh, tënkee euh, si ni ma ko mën a résumer. Mhm. donc si biir loolu xam nga état du Sénégal depuis plusieurs années jël na ay mesures mais xam nga. agression ci environnement bi du doy ah. lu tax du doy parce que population yi dañu yokk dañu soxla ay dëkkuwaay mhm. te foog ñu toj fii dëkk fay xam nga agressé nañu sax agriculture bi mhm. agressé nañu élevage agressé nañu en tout cas secteur primaire bi lu bëri ndax population yi dafa yokk donc si loolu état du Sénégal jël na ay mesures mhm. am nañu stratégie nationale développement durable kooku xam nga moom moo ëmb ensemble euh, Euh, activité yu ñu bëgg def mais à de ça balaa ñu koy jël parce que yéex nañ ko jël quand même il faut le reconnaître balaa ñu koy jël amoon nañu ay yeneen instruments ay plans <laughs> ay programmes yuy agir mais doyul xam naa si biir waxtaan bi dinañu développer benn benn par benn incha allah mm. euh, ñu ñëw ci askan wi ci boppam monsieur Diouf yaa ngi fi teewal gox-goxaat yi les élus locaux au euh, niveau des population naam seetlu nañ ne appropriation amul nit ñi xëy na bokkul ci lu ñu jikkoo càmmteg environnement donc il faut nécessairement ñu gën a euh, renforcer sensibilisation gi mais d'abord yéen à votre niveau ci gox-goxaat yi lan ngeen def ne ay jéego pour càmmteg alam bi merci El ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nekk bokkal plateau bi di nuyu Sénégalais ak sénégalaises yëpp particulièrement élus locaux yi di maire di conseils municipaux conseils départementaux président de département yi euh, Assane euh, gouvernement bi dafa am lu mu warloog askan wi mooy promouvoir le développement économique social et environnemental kooku charte constitution moo ko moo ko jagleel. boo demee ci code général bi bu ñu tënk ñun ci suñu añ mission des article trois lañ ko lañ ko fësal te développement nag mënoo koo def te xalaatoo askan wi. fu ñu dëkk. mooy environnement bi. jaww suuf si garab yi ndox mi les mares les fleuves. yooyu yëpp da loo xam ne doomu aadama da koy jëfandikoo au quotidien pour mën a lekk bi suur bu feebaree mën a faju bu bëggee tukki war a tukki moo tax code bi jox ñu mission général boobu na ñun nañu promouvoir le développement la base dem ba réforme bi ñëw président Macky Sall gën koo dëgëral jox ñu ay compétences mooy la gestion de l'environnement et des ressources naturelles article 304 ak 305 moom la ñu consacré ñun. département yi collectivités locales yi dañ ko jox ay sañ-sañ ci loolu. commune bi ñu jox ko ay sañ-sañ ci article 305 lan di créer ay forêt di leen protéger di defar ay pare pour ngelu xeex daay-daay yi créer sauvegarder environnement ci ay reboisement. Mhm. ñu sas ñu ci collectivité locale bi ñuy jiite. ñu élève ay plan d'action de l'environnement boo defee sa plan départemental de développement wala nga def plan communal de développement la nga cay teg tout de suite mooy plan d'action de l'environnement parce que jaww ji ak environnement da loo xam ne mooy suuxat lépp gis nga suñu instant garab liñ ciy noyyi di ko bàyyi ak ker bi nga ciy am ndox mi ngay naan war a dem géej ñëwaat askan wi gàncax gi loolu mooy suuxat doomu adama bon nag ñun comme ñun démembrement de l'état lañ ndax code bi def ne ñun en tant que président département wala nga nekk maire wala nga conseil départemental wala conseil communal conseil municipal loolu lañ la cëral nga jàppale gouvernement bi en tant que service déconcentré mhm. décentralisé plutôt nga mënoo xeex ndóol mhm. jàppale askan bi ci ñu mën a lekk suur promouvoir la richesse et la croissance très bien loolu c'est important mu ngi mu ci plan bi ci ci ci stratégie bi mais est-ce que yéen a nga jëf sur le ngi ci sur le terrain euh, sur le terrain département boo dem tey tey tey hmm. am na plan d'action environnement commune boo dem am na plan d'action plan d'investissement communal boo am ci ay ay axe stratégique lañ ba ca gën a fës hmm. mooy la promotion de l'environnement très bien dinañ ñëwaat ci lu gën a yaatu ci kanam parce que même au niveau gox-goxaan yi aussi gis nañ léeg-léeg euh, joxinu suuf seeg yooyu aussi waaw dinañ ci ñëwaat très bien euh, soxna Aïssatou au niveau de Enda également yéen tamit ci terrain bi lan ngeen di dolli mbokk yi parce que euh, foog naa ni ak yëgoo am na ndax xam nga aussi ay action bu fekkee coordination amul rek dafay xaw a sooxee dëgg la El Hadj ñu ngi rafetlu émission bi parce que mhm. jàpp nañu ne lu am solo la mën a mhm. waxtaan ak askan wi. Mhm. ci euh, mbirum environnement. parce que mënuñu wax développement te waxuñu environnement bu sain. ñu wax développement économique ak émergence te nit ñi nga xam ne ñu ngi ci environnement bi tamit duñu ko toppatoo. comme ni ko soxna Gogo waxee ñun ci euh, ONG la ñu nekk maanaam ñun dañuy jéem a egg fi nga xam ne nguur gi mënu fa yegg jàppale nguur gi pour que objectif yi mu am yépp ñu mën ko atteindre donc ñun ci ENDA ñu ngi dem ci gox-goxaan yi waaye suñu objectif ak suñu priorité mooy jël citoyen yi def leen ci au centre ci li ñuy liggéey parce que jàpp nañ ne mënuñu am benn résultat bu dee citoyen yi xamuñu lan mooy solos environnement bi mm-hmm. bu njëkk bu dee citoyen xamuñu tamit yan naka lañuy sàmmee seen environnement donc ñun tey suñu liggéey mooy ci programme yi ñu am ci projet yi ñu am ci gox-goxaan yi daal di jàppale nit ñi sensibiliser élèves yi jigéen ñi ci seen mbirum liggéey ba ñu xam naka la ñu mën a amee développement économique boo xam ne dina ànd ak sàmm environnement bi. loolu tamit suñu xoolee euh, day jàppale nguur gi parce que am na foo xam ne nguur gi mënu fa egg moyen wu nguur gi mataliwul lépp waaye ñun ci suñuy moyen ñu ngi dem ci gox-goxaan yi di sensibiliser citoyens yi. ci mbirum reboisement ci question énergétique ci mbirum changement climatique. ak lépp li nga xam ne mën nañ ko def ak seen i jumtukaay yi nga xam ne am nañ ko. pour mën a sàmm environnement est-ce que ñoom ñoom euh, wax ji dina tàbbi ci noppi ñuy dégg maanaam ñoom est-ce que am nañu répondant est-ce que accumé nañu yëf yi wala da jàpp ne lu dafa mel ni lu bees ci nit ñi daal ñun jikkoowuñu ko xam nga processus la mënuñu ko commencer tey rek daa di mbëbbe dañ ci am yëpp ñu ñu ñu gis ko pour ñun ci ENDA processus la ñun dañuy wax euh, défi la donc comme défi la dañuy teg ay yoon yoo xam ne dinañ ci egg maanaam am nañ ci euh, fu mu nekk nii ay points yoo xam ne am nañ ci am nañ ci ay contenté mm-hmm. euh, bu ñu demee maanaam ci Joal am na benn programme bu ñu amoon ak Union européenne financé ko ñu àndoon ci gouvernement bu Sénégal ñu ko doon wax gestion intégrée des zones côtières jàpp nañ ne ñun dafa am solo ñu jàppale xale yi ñu comprendre lan mooy solo environnement Euh, ci projet gestion intégrée des zones côtières ci diwaanu Joal jàppale woon nañ xale yi ba nga xam ne ci seen école dañuy trier déchets yi euh, pour ñu loolu amoon na solo ba nga xam ne projet bi jeex na mais sañ fa demee gis nañ ci école yooyu noonu xale yi ñu ngi doon gën a continuer euh, di trier di yi amoon nañ fi benn programme boo xam ne tamit pour sensibiliser nit ñi ci mbirum changement climatique parce que dañ koy dégg te duñu xam lan moo ko wundu ak naka la demee mhm. programme boobu tamit bañ ko lancé gis nañ ne nit ñi de plus en plus ñu ngi xam lan mooy changement climatique te ñu ngi waxtaan ak yomb ba nga xam ne tamit naka mënuñu xeex lépp ci changement climatique waaye mm. naka lañ leen mën a jàppale ba nga xam ni dinañ mën a dëkk ak mm. changement climatique bi te dinañ continuer seen activité ci yooyu yëpp ñu ngi ci def ay jéego am na solo ndax euh, ni ñu ko waxee ci ndorteelu waxtaan yi mbokk yi environnement mooy lépp daanaka ci wàllu nekkin ndax mën nañ joxe misaal ndar bu ñu déggee ne géej gaa ngi dandu nangu na yenn gox yi ba ñenn ñu toxu loolu xam ngeen ni ci wàllu changement climatique xëy na moo koy jur ak agression yi ni ñu ko waxee waaye euh, wàllu mbay mi baykat bi toog xëy na ab diir gisul ab taw xam ne loolu di coppite yi la euh, tàngooru mit wi kon loolu lépp xam ngeen ca li ñu ci wax yëpp mooy mooy reenu koom-koom euh, damay dem ci Racine kan soog a ñëw ci professeur Tijani parce que comme moom ci wàllu njàngale mi surtout métier environnement euh, ci la ci la yëngu ma ñëw ci professeur euh, monsieur Racine kan ci wàllu yéen tamit mission yi rek bu ko defee sëñ Tijani ñëw ci solo yi njàngale mi ñeel ba tey le questions environnementales yéen Union internationale pour la conservation de la nature également UICN naka ngeen nekkee ci terrain bi ba tey ngir dolli rek ci xeex bi jëm ci sàmm environnement bi. jërëjëf El Hadj Assane damay nuy ñu nekk ci plateau bi. Mhm. di rafetlu aussi sa émission bi. Mhm. nga xamante ne wax dëgg yàlla am na njëriñ topp ci askan wi. ci lu lépp thème yi ngay aborder te ñu koy seetaan surtout thème bi nga xamante ne tey moom la ñu jàpp mu di problème mu environnement. Mhm. Euh, ñun waa UICN. UICN Union internationale pour la conservation de la nature maanaam mooy kuréel bi nga xamante ne ci àdduna bi mooy kuréel bi gën a mag bu boole dajale ay état ay. ONG ay institutions de recherche ay parlementaires dinaa ci waxaat ak kuréel yu bëri yi nga xamante ne dañu dajaloo. Mhm. pour gën a dem aar sàmm li jëm ci environnement ak euh, euh, conservation de la nature de manière générale ñun suñu mission dañuy jéem a yi société bi pour ñu gën a dem gën a farlu ci xeexal environnement bi nga xamante ne ñëpp seede nañ ne. ci temps yi passé ci at yi passé ku nekk gis nga ni mu wàññeekoo boo moytuwul mhm. ni mu delloo ginnaaw malheureusement ci fànn yu gën a bëri pour def loolu nag ñun pour ñun il faut que ñu dajaloo dajalee ay nit ay xam-xam yoo xamante ne dafa màcc ci côté environnement bi ak moo tax ñu am ay commission ci biir seen commission mondial ay experts. yu ci mel ni ñoom professeur Tidjani. Mhm. ak ñi nga xamante ne vraiment seen xel dafa màcc ci côté géej ci côté parc yi ci côté loo mën a xalaat rek espèces yi ak yu demee noonu ñooñu di xelal société yi parce que nag dañu yaakaar ne pour nit ki am sañ-saña agir il faut mu xam mu am xam-xam d'abord. Mhm. il faut mu am xam-xam pour mën a mhm. am sañ-saña def dara. bu loolu amee ba pare nag mu mën a moom it bokk ci ñi nga xamante ne ñooy changer situation bi. ñun loolu mooy suñu euh, doxi nu ñu doxalee ci suñu intervention. Mm-hmm. dañuy jéem a nag ci au niveau du Sénégal liggéey ak état bi bien mm-hmm. sûr mënoo fi def loo xamante ne am na solo fekk état bi tegu ci loxom loolu lu leer la. Mm-hmm. dañuy liggéey ak ministère de l'environnement du développement durable di gëlee di liggéey ak ministère de la pêche ay convention am nañu ko ak ñoom. di liggéey ak ministère boo xamante ni bu nekk yaa ngi yëngu yu même ci ministère des finances. Mhm. keroog dañuy dajale pour wax ci euh, li ñuy wax euh, gouvernance euh, environnement comment économie verte. Mhm. nan la ñuy def pour gën a mën a créer ay emplois yoo xamante ni dañuy gën a respecter environnement bi di ko ko. Euh, gën a sargal loolu daal mooy suñu taxawaay fii mhm. suñu mission nag bëri na dinañ ci mën a wax ci émission bi justement laata laata ñuy ñuy daaneel foofee mooy mission bi boobaak léegi parce que xam naa ne UICN euh, yàgg yàgg na taxawaay gi Sénégal est-ce que mënees na ne ay ay avancé ngi yu ay gët mën a tegu euh, ci ci wàllu yëngu bi boobaak léegi parce que bu ñu ne yëf yaa ngi gën a dégradé wu on a l'impression que boobaak léegi lu ñu ay ay ay ay garde-fou est-ce que ñanga ca mën nga ma wax ni lii lañ def ne ay progrès ci ci wàllu càmmute gi wax dëgg yàlla am na ay aspects yoo xamante ne yu bëri ja liggéey nañ ci ak euh, état bi. Mhm. ak yeneen euh, institution te ñu am ci yoo xamante ne ay avancé la loolu. Mhm. mën nañu mën nañ ci euh, jël ay ay ay situation yoo xam comme lu mel ni par exemple mobilisation. Mhm. yi ñuy amal ci kuréel yu mag yi nga xamante ne état bi ñoom ñoo ko sanc muy par exemple. Euh, assemblée nationale. Mhm. fexe nañu ba député yi am fa ay réseau yoo xamante ne te sax amoon na benn député bu waroon mën a ñëw fii mais situation bu législation bi moo tax mënul am. Mhm. te gën leen dooleel ñu mën a gën a xam seen compétence yi ñu mën a taxawee pour environnement bi jëm jëm kanam. Mhm. loolu par exemple c'est une situation boo xamante ne taxawoon nañ ko fii. am na solo am nañu aussi ay restauration yu ñu def fii par exemple ba mu bëggee wax parc parc national du Djoudj. Euh, amoon na ay période yoo xamante dafa nekkoon ci benn liste boo xamante vraiment liste yi parc yi gën a génne nekk en tout cas yu marché wul la woon mm-hmm. waaye fexe nañu ànd ak état bi ba nga xamante ne génn nañ ko ci liste boobu ba léegi c'est un site de référence au niveau international nañ ko très bien jërëjëf professeur ñu ñëw léegi ci wàllu njàngale mi ndax xam-xamu environnement am na solo maa ngi wax sànq ne que yow yaay responsable master professionnel euh, ci wàllu environnement mm-hmm. donc ñu ci solo yi euh, njàngale mi parce environnement ci xamuñu ko am na ay borom xam-xam ci fànn woowee tam du yomb. dëgg la hmm. euh, maa ngi nuyu suma naataango yu toog si bi. Hmm. di nuyu téléspectatrices yi ak téléspectateurs yi ñuy déglu. Euh, maa ngi rafetlu émission bi. jërëjëf parce que tey quand même euh, di rafetlu aussi Union européenne lu mu lënkaloo ak TFM. Hmm. di def émission sur l'environnement parce que environnement mooy lépp boo jëlee environnement mooy lu nuy noyyi. nit bu nekk chaque jour di nga noyyi quinze mille litres quand c'est pollué da da ngay lor sa bopp lor doomu aadama lu ñuy lekk ñu ngi ko jëlee si suuf si suuf si bu yàqu dina mun béy loo xam ne ne dina am solo ndox bi bu yàqu aussi dina am lu ñuy naan donc environnement comme lu mu ko waxee euh, ça doit être au cœur de les débats ñun defoon nañu fi ça à la campagne 2012 defoon fi benn atelier pour dire comment placer l'environnement au cœur des débats politique maanaam environnement ban place war a am si débat politique bi kooku c'est très important maa ngi euh, rafetlu Racine Kane lu mu wax maanaam tey jii environnement c'est vrai am na ñoo xam ne am nañ si xam nañ si tuuti wante ñu si am xam-xam pour résoudre problème yi loolu moo manqué. Ah. chaque fois dañuy ne tey ku nekk boo jëlee doomu aadama bu nekk mun na la wax ay jox ay information sur le réchauffement climatique quelles sont les mesures li nu war a jël matuwaay li ñu war a jël mhm. pour justement lutter contre le réchauffement climatique okay. et je pense que loolu mooy suñu wareef maanaam gunge population yi mhm. su des projets concrets ñun def nañu ay projets concrets avec des populations installé nañu ay biodigesteurs yoo xam ne ni tey jii ñu ngi am biogaz di ko toggee di si am engrais am agriculture bu sell mhm. ñu ngi essayer de valoriser les déchets plastiques parce que aussi il faut ñoo xam ne tey jii le monde a changé maanaam mbalit bi dafa am valeur mbalit boo gis tey ji am na valeur déchet plastique am na valeur lépp am na valeur loo tax maa si maa ngi fàttaliku daaw defoon naa fi benn article ñu ngi jëm jublu si tabaski tabaski ñaata tonne déchet yu jóge si eh, nag eh, si si xar yi ñu ñuy sotti si si si fosse mhm. kooku buñ ko jëloon yóbbu ko def engrais suba dootuñu soxla di jënd ay ay pesticides maanaam engrais chimique yoo xam ne ne ñëpp xam ne na lu muy loree doomu aadama donc il y a yoo xam ne mm-hmm. war nañu ko def mais loolu il faut que ñu sukkandiku si xam-xam mm-hmm. il faut xale yi jàng am ay compétences mm-hmm. askan tam xam ne loolu am na njariñ parce que ba tey ji déchet rek boo ko waxee mooy mbalit lu noonu sànni ci sën ba absolument mm, xamuñ ne récupération war na mun a am léegi mbalit bi yëpp am na valeur. Mhm. Euh, euh, muy li lii di métal am na valeur. Mhm. ñun tey ji jël nañu par exemple ay pneu ak ay déchets di si defar ay table ñëpp gis nañ ko université. Mhm. fële xale yi di toog di jàng. defar si ay table defar si ay toogukaay defar si ay pot de fleur. loolu yëpp action yëpp mun nañ ko def kayit mën nañ si def lu bari. en terme de dugal ko si économie circulaire former xale yi xale yi am liggéey mën a créer sax suñu woowee seen start-up. pour mën a euh, liggéeyal seen bopp. loolu am na solo. très est-ce que master boobu ak wala njàngale mi ñeel environnement xale yi xër nañ ci trop. ah oui absolument tey jii euh, ñu ngi sant vraiment un mmh. engouement de sur les métiers de l'environnement. parce que quand même ni ñu waxante dëgg. Mmh. au niveau du master suñu expérience depuis 2003 90 euh, pour cent xale yi def master bi nañu am liggéey te xale bu nekk tey jii lu muy ut mooy am liggéey jàng ba pare am liggéey. ba bu fekkee na da am liggéey boo xam ne dina jëriñ askan bi loolu encore moo gën a am solo pour justement les je dirais les populations. très bien euh, ma fàttali ne am na sama mbokk séeréer Daniel Diouf ci ginnaaw mu ngi ne ñuy wax alam gi di moytu souvent environnement environnement mais defe naa ne gars yi miine nañu ak baat yi Daniel merci ci noonee nga approprié wu émission bi euh, noonee nga ko xamee alam gi am na solo euh, merci beaucoup professeur Tidjani soxna Gogo ci wàllu mesure yi maintenant parce que bu ñu waxee agression géej gi xam nga bëccëgu ndara kam ay sare dem di tibb suuf di dem réew mënu nangoo lu ni mel nangu it xamante ne ay xanti woto yu mel ni sama yos euh, waroon dawatuñ fenn ñu indi ko euh, Ndakaaru ah et cetera yooyu c' est c' est à l' état maintenant de prendre les mesures qu'il faut pour euh, arrêter loolu. bien sûr El boo dégloo intervenant yëpp di nga xam ni environnement tey mënatuñ ko jàppee wala protection de l' environnement mënatuñ ko jàppee. Mhm. comme jëmbat garab rek wala dara. Mhm. Ah, protection de l' environnement tey approche bi approche su qualité de vie la approche bi approche sécurité la. ce qui fait tey état euh, mënuloo nit mënul jóg rek def lu ko neex ci environnement bi. Euh, professeur Tijani wax na dara léegi ci mbalit mi mais est-ce que nit ñi xam nañ ni que jël mbalit sànni ko ci mbedd mi c'est formellement interdit par la loi le code de l'environnement l'interdit. Mm-hmm. yaa ngi dégg donc pour dire que euh, environnement euh, en plus de yi la waxoon sànq ni noonu lañ ko war a déggee boole ci approche qualité ak sécurité environnement dafa encadré par des lois. bi ci gën a tar mooy le code de l'environnement bi nga xam ne moom dafa dellu ci ci yooyu yëpp code de l'environnement bi bu muy wax protection de l'environnement dafa ne protection de l'environnement dafay asseoir ci ay principe gaa ñu wax nañ ko léegi mhm. mais soo gisee principe yi mu énoncé dans le code principe décentralisation mi ngi ci biir coopération mi ngi ci biir mhm. euh, planification Euh, euh, inclusive mu ngi ci biir boo xam ni ku nekk da nga ciy gis sa bopp mhm. mais ku nekk itam da ngay jouer sa rôle donc yooyu yooyu yëpp mi ngi ci biir mhm. bu ñu dellu see si dommage yi <coughs> dommage yi tey nee nga nit ñi ñu ngi ñëw di tibb suufu géej bi mhm. amuñu ci droit parce que suufu géej bi nekku fa rek pour plaisir am suufu géej bi day <laughs> protéger <laughs> géej gi mais état bi jëloon na ay mesures dans le temps d'abord première mesure yi euh, mooy xam nga xam naa mos ngeen ko dégg sax euh, la bande de filao boobu la ñu njëkk def kooku euh, mesure mécanique la boo xamante ne c'est tout de suite pour protéger protéger la code mais surtout protéger en amont cuvette maraîchère yi nekkoon si si littoral bi mm-hmm. donc yooyu si si si si ci benn mesure la parce que tibb suuf si day fragiliser code bi si bu suuf si dafay yàq suñu bande boobu nga xam ne def nañ plusieurs années pour asseoir ko parce que xam nga garab doo ko saxalee tey eh, rek du toll ni nga bugg mu toll il faut des années pour mu être utile mhm. hmm? donc euh, am na ay yeneen affaire la gestion des déchets mhm. la surtout des déchets plastiques wax nañ ko gaa ñi accusé nañ ne ñu état bi jël na loi sur la la la loi plastique mais mhm. alors qu'est-ce que vous en avez fait jusque-là defuñu ci mënuñu woon avancer mhm. mënuñu woon avancer parce que peut-être décret d'application yi dafa tardé woon mais bi ñu commencé jël décret d'application yi pas mhm. plus tard qu'il y a deux semaines Euh, ministre de l'environnement convoqué na benn réunion asseoir benn comité interministériel de suivi mhm. de de de de cette loi en plus de ça état bi ministère de l'environnement en particulier jënd na ay micromètres parce que loi bi dafa ne plastique yi nga xam ni ni seen dimension tollul 30 micromètres yooyu yëpp c'est interdit ci seen euh, importation mhm. seen vente seen utilisation mooy plastique yi nga xam ne en général mooy ñuul yi mhm. am na ku ñu ne gobale yeeg euh, yeneen pneu yeeg yooyu lu ngeen ciy def bi yëpp ay déchets plastique la mhm. la bi bi ñu xamee ni euh, état bi moom kenn ministère de l'environnement moom kenn mënul def yëpp ci biir collaboration am ak ministère du commerce ak ministère des finances à travers la douane ministère de l'environnement dafa jënd ay micromètres maanaam ay appareil de mesure yi nga xam ne moom la doté douanier yi nga xam ne ñoo nekk ci poste point de contrôle yi mhm. pour ñu contrôler euh, le type de plastique qui rentre dans le territoire mhm. et son utilisation donc micromètres yooyu ñoom lañ leen jox euh, beneen bi moo di ne euh, à part extraction de sable bi mhm. ak kii bi yaa a wax nañ ci pollution yi le comportement même des des des Sénégalais xam nga ñu ngi doon wax naan ni que environnement Euh, approche qualité la kenn ku nekk ci ñun ci sénégalais yi ah. bëgg nga dëkk ci ci environnement bu bu neex buy xeeñ lu neex hmm. mais bu am surtout sécurité yaa ngi dégg donc ku nekk war nga def ba nga xam ni ah, li ñuy tere nga xam ko ah, nga nga nga moytu ko hmm. mais li ñuy tere dañ koo tënk yëpp ci li ñu tuddee le code de l'environnement bi nekk hmm. en révision code de l'environnement bi jëloon nañ ko euh, d'abord en 83 mais jëlul woon aspect yëpp en compte ñu réviser ko en 2001 adopté ko dugal si parce que évolu contexte bi dafa évolué woon entre 83 et 2001 il y a eu énormément de conventions internationales yu nga xam ne Sénégal partie la ci mm. te xam nga convention yooyu dañu am primauté si loi nationale te buñ ci xase bu ñu xasee ba adopté leen ñun souscrire si donc dañ koy transposer mm-hmm. dañ koy ñëw appliquer si suñu dëkk bien sûr en prenant en charge suñu considération spécifique Mm-hmm. si suñu dëkk tey li ma bëgg wax mooy di ne Sénégal moomatul boppam pour def lu mu bëgg a def mm-hmm. cest bu ñu bëggoon def tey jii installé benn usine bu mag si suñu frontière ak Gambie wala suñu frontière ak Guinée dañu am responsabilité euh, informer autorité dëkk yooyu mm-hmm. parce que code de l'environnement moo ni bépp installation boo bëgg a def da nga war a def procédure étude d'impact environnemental def évaluation mmh. environnementale. voilà def audience euh, publique. Uh-huh. nit ñi d' accord si. mu nga xam ne amul benn dommage ci ñoom. ñu soog ñu soog a la ko autoriser. maintenant application une bonne application monsieur mmh. Diouf de de de cette loi de ce code dafa laaj aussi nit ñi euh, ñu yee leen ci maanaam aussi Sénégal euh, li fi ne fi ne mmh. xëy na taux d' analphabétisme bi jàng mi demee wuni loi yi moom dañ koy wax rek mais léeg nga gis ko ku def loo xam ni da nga xam ni kii umpale na ko. waaw donte ah, naa ni waxuma la ignorer. waaye danoo yëgul lu bari yenn sekkee donc sensibilisation bi il faut il faut nag ñu gën ko renforcer. waaw oui cest à que sensibilisation bi ñun ñu dañ ci am cër ñun en tant que collectivité locale. Mm-hmm. ndax ñu dañ ñoo fal te population ñoo ñu fal di xaar ci ñun ay résultats. sur le développement. moo tax ñun dañuy def ay ay ay fora yu bëri ay forum di réunion wax population yi. Mm-hmm. nee naa sans plan d'action daal collectivité locale bu nekk arrêté nga ko. signé ay convention ak i partenaire pour Racine Kane mi signé nañu convention avec le REPES ak ñoom UCM tu te rappelles à la maison des élus locaux mm-hmm. ministère environnement waxi noppi mm-hmm. loolu boo demee à la base ci commune yi fondamentalement ñu def réaliser action yi nga xam moom la ñu signé woon ci convention bi ba ca njëkk boo seetloo environnement mu ngi ko gën gën a agressé boo jógee maatam bi dugg si biir Sénégal les cinq régions du Saint-Louis mm-hmm. Matam Louga Kaffrine Tambacounda. dañu signé benn convention yu naan entente du Ferlo pour ay action énergique ci ay plantation d'arbres reboisement par feu éducation à l'environnement dans les écoles pour que loolu ñu mun a def ay efforts pour bloquer les effets néfastes du changement climatique boo demee ci dëkk yooyu tey 2015 lañ ko tàmbali ci collectivités locales yi benn exemple laa lay jox pour won la liggéey bi collectivité locale def ci affaire préservation de l'environnement département Kaffrine séddale na en quinze mille fourneaux yoo xam ne dañ ko jox population yi ak ménage yi pour ñu mën a conserver les question de charbon ndax boo ko seetloo jaww jeeg gàncax gi foofu la gën a torxe te la gën a tumuraan tumuranke mhm. bañ ca tegu avec les partenaires IED Afrique ak le programme du ministère de la gouvernance locale man leen duy au passage ñoo ñu jàppale ba ñu installé ay parc à vaccination ci benn corridor boo xam ne boo jógee ginnaaw Kaffrine da tàmbalee këy dem ba ba Sorokoñ mhm. loolu yëpp ay mesures la ñun commune dañu leen di jël mhm. voter le parcours du bétail pour que ñu mën a encadrer fas yeeg maam xar yi ak nag yi fu ñuy jaar pour ñu mën a agresser dootuñu mën a agresser environnement bi mhm. loolu mooy li nga xam ñun la jël en tant que mesure en tant code vocal mhm. ndax dama lay ñun dañu am cër bu rëy ci loolu gis nga suuf si yi nga xam moom mooñ ci la ñuy dox mhm. di naan ndox mi di seelu ci garab gi di ci dund di ci meññeef yooyu mhm. mooy suuxat askan mooy suuxat nit moo joxe dund moo joxe richesse. maintenant les deux vont ensemble. waaw cest à di nga di nga def ay actions concrètes. waaw mais nit ñi tam di nga fexe ba ñu xam li ngay def lu mu. mais loolu mooy sànq xam nga. toutes les parties prenantes plan d'action boo dégg plan d'action du ñu rek ñoo koy def mhm. toutes les parties prenantes dañ ci bokk ONG yi service technique population yi communauté yi ndax ñoom ñoo ko moom ah, intégrer seen action ku ne ñu seet la ca mm. bëgg ak la ca mën ñu jox la sa cër nga jàpp ci loolu ndax véritablement développement mm. développement ñëpp la ñun moomuñ ko en tant que collectivité locale ñu mm-hmm. sommes dañ fa nekk pour genre gouvernance rek gérer la la leurs préoccupations. ça c'est très très important. merci Diouf soxna Aïssatou ci wàllu plaidoyer ba tey li gën a ti woon nag mooy nit ñi mu ancré suñu xel yi xam naa ni euh, ñenn ci sama maas gi xaw nañoo dërkiis waaye pour tout tànk yeeg ci biir lekkool yeeg ñu dugal ko ba mu xam ni problème de comportement lay doon maanaam dootuma dox ci mbedd mi rek sama banaana sànni kenn dal ci daal di dal yi fële ca caaray wala feneen mais mu doon euh, doxin ak doxalin yitteel la ñun euh, ci euh, ci Enda Énergie loolu moo tax ñuy lancé programme yu bëri. ñoo xam ne dafay euh, soxal mbirum sensibilisation. programme yooyu nag am na ci loo xam ne pàcc bu bëri dañ ko jagleel xale yi. Mhm. maanaam élèves yi ci école yi. te ñun jàpp nañ ne loolu. ni ko soxna googoo waxee daf ministère de l'environnement rek mun a gérer problème bi dafa war a am lëkkaloo ci diggante ministère yi par exemple ministère de l'environnement ak ministère de l'éducation il faut ñu liggéey. ba nga xam ne mbirum environnement ak mbirum changement climatique dafay nekk ci curricula bi xale bi di màggaleek moom. Mm. ñu ko koy jàngal. am yenn gestes yoo xam ne ci école bi la koy tàmmee. ci mbirum économie énergie naka lañuy ñuy économiser énergie bi ci mbirum déchet naka lañuy ñuy trier suñuy déchet mu xam lan mooy recyclage jàpp nañ ne xale yi buñ teelee def loolu ci seen bopp buñ demee seen kër lépp lu ñu jàng ci école bi dañ koy yóbbu ci seen kër te buñ ko yóbbu ci seen kër dinañ ko yóbbu ci gox yeeg gox goxaan yi ba nga xam ne liñ ci yaakaar yëpp dina ci am mm-hmm. ci biirum sensibilisation bi tamit jàpp nañ ne bu ñu waxee code de l'environnement xëy na ñun ëpp ci dëkk bi dégguñu tubaab donc duñ ko mën a xam mm. donc ñun ci suñu liggéey tamit dañuy lëkkaloo lu bëri ak rajo communautaire yi ci gox-goxaan yi ñuy liggéeyee ba nga xam ne lépp programme bu ñuy def ci dëkk yooyu noonu dinañ ko mën a wax ci seen kàllaama bi ñu dégg mhm. ubbil leen rajo yi tamit ba nga xam ne ñoom dinañ mën a jokkoo ak experts yi experts yi mën leen gindi ba ñu xam tamit lan la ñu war a mën a mën a def mhm. euh, ci question bi nga posé sànq ñun tamit xam nañ ne comme ni ñu koy waxee ci àddina bi ci convention yëpp dañoo reconnaître ne mënuñu xeex wala sàmm environnement bi wala xeex changement climatique yi te liggéeyuñu ak collectivités locales yi parce que ñoom ñooy porte d'entrée bi parce que ñoom ñoo gën a jege communauté yi ñoom ñoo gën a xam seeni soxla ak li ñuy dunde loolu moo tax ñun dañuy jàppale ci mbirum sensibilisation ak plaidoyer yi dañuy jàppale collectivité locale yu bëri ñu intégrer mbirum environnement ak mbirum changement climatique dans des plans locaux de développement dans de plans locaux de développement loolu moo waxoon ne ci benn programme bu ñu amoon ñu fexe ba ci Petite Côte ñu daal fay am benn entente intercommunal bi nga xam ne dafa euh, Mbour Saly euh, ñoom ñëpp dañoo lëkkaloo daal ne mm-hmm. ñoom ñoom rek mënuñu xeex Euh, mbirum changement climatique waaye par exemple bu ñu lëkkalee seen doole. Hmm. ñu signé benn entente boo xam ne dafa war a xeex mbirum déchet. ak mbirum érosion côtière parce que xam nañ ne Mbour zone économique la te bu ñu xeexul mbirum érosion côtière dinañ mm. dem ba nga xam dootuñu am plage kon touristes yi dootuñu fi ñëw donc ñu ngi leen di jàppale ba nga xam ne dinañ mën a sensibiliser mën a fexe ba nga xam ne ñëpp ñu lëkkaloo ci liggéey ci mbirum géej gi ñu mën a toog waxtaan ànd ak communauté yi xam yan jumtukaay la ñu war a teg pour mm. que ñu sàmm seen domaine maritime bi ba nga mm. xam ne dinañ mën a fexe ba touristes yi di gën ñëw te ñoom tamit dinañ ci mën di liggéey ñu yi bu ñu bëggee xeex déchet il faut que comme ni ko professeur Tidjani waxee ñu gis ne déchet du ordure rek mais mën na nekk source d'emploi mmh. donc ñun ñuy liggéey ci gox-goxaan yi ci quartier yi pour organiser précollecte yi daal di créer ñun li ñuy tuddee des entreprises sociales et solidaires dans la gestion des déchets loolu nga xam ne jeunes yi ñoo ciy liggéey daal di def précollecte bi. daal ñu jàngal leen naka la ñuy tenir comptabilité comme ça ñoom bu ñu xamee ne lii bu ñu koy liggéey dinañ ci mën a am salaire. dinañ gën a fexe ba seen koñ ak seen gox goxaan yi gën a set donc loolu yëpp ay jéego yu ñuy teg la. pour jàppale nit ñi ci mbirum sensibilisation mais également jox leen ay outils. yi nga xam ne bu ñu ko tëralee dinañ ko gën a mën a sàmm te dinañ ci gis seen bopp tamit. maanaam ci ci ñu ci recycler sauf que pour le moment am na fi sax mais gars itam dañ leen di xaw a stigmatiser ñu baal ma tuddee leen ay buuju maan yooyu xam nga Sénégal dañoo xaw a réyale suñu bopp loo gis ci àddina ca loo gis rek ca ca ci suuf nga war a tàmbalee je pense que il faut que ñu yenn taxawaay ci société waxuma rek wut ca xaalis kese waaye recyclage aussi euh, taxawaay citoyen la ndax euh, c'est toute une chaîne il faut que jàpp ne liggéey la comme liggéey yëpp mhm. liggéey ci déchet liggéey la comme liggéey yëpp mhm. et ki ciy liggéey war na ci mën a gis boppam fekk ay soxlaam mhm. donc liggéey boobu tamit bu ñu ko defee ba nit ñi démystifier ne ah lii du liggéey a Mhm. jeunes yi ti nga xam ne amuñu liggéey daal di jàpp ne bu ñu defee ci recyclage mhm. dinañ sàmm environnement bi d'un côté ci beneen côté bi également dinañ am liggéey boo xam ne dina mhm. leen mën a permettre ñu faj seen soxla très bien euh, taxawaay yu mel ni yi ngeen am ak yu Union européenne ak ONG yi dina gën di valoriser euh, nest pas euh, loolu ne ne ab taxawaay métier monsieur Racine Kane laata bay ñëw ci professeur Tijani nit ki boo ko ne lii laa bëgg ñu ànd ca dafay fekk nga yi loxo béykat bi ci dëkk bële pour wan ko ni euh, changement climatique yi mu ngi dal sa kaw naka la ko mën a ràññee hmm. euh, je pense que aussi loolu bu ñu ko gisee ci seen dundin euh, gis gaañu gaañu yi dinañ dinañ ci gën a sawar ci ànd ak yéen ci xeex bi dëgg la hmm. loolu lu am solo li nga wax ni parce que ñun fi ñuy li ñuy liggéey ci gox yi dañuy dañuy gis problème yooyu yu mu feeñ mu tar hmm. par exemple li ñuy xorom si ni muy duggee léegi ci suuf si mooy salinisation des terres loo xamante ne ci yenn gox yi yu mel ni ci ay diwaanu Foundiougne ak Fatick Diourbel dañ fa doon béy mais mënatuñ fa béy parce que suuf si yàqu na léegi mm-hmm. ndax salinisation euh, xorom si bëri na te boo ko seetloo bu njëkk en fait côté yooyu dañ fa amoon yoo xamante ne dafa doon tere xorom si di gën a yàq suuf si lu mel ni ay mangrove yoo xamante ne dafay baare ah. naturellement géej gi pour mu bañ a ñëw ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir kii mhm. loolu loolu ñun dañ dañ koy dañ defet loo xamante ni dañ koy dund di ko gis mhm. te suñu approche nag mooy jéem a xool yan solution yoo xamante ne ci nature bi ci boppam la ñuy sukkandiku pour mu gën a indi ay fa euh, mën a faj problème yi nga xamante ne yooyu la ñuy gis foofu mhm. jéem a par exemple wax naa fi ay mangrove reboisement wu mangrove lu am lu am solo la moo gën a bëriwul euh, li muy jar ci xaalis. Mm-hmm. li maanaam li ñu war a génne par exemple boo boo ko comparé ak euh, yenn infrastructure yi ñuy defar ci géej gi. Mm-hmm. ki nga xamante ne lu yàgg yàgg dafa yàquwaat. loolu problème la boo xamante ne bu rëy la. donc bu ñu ko defee loolu ñun taxawal nañ ci benn projet bu am solo. ñu ko doon tudd initiative pour la mangrove en Afrique de l'Ouest mm-hmm. dañ ci dem ba wut ci ay gën ci ay xam-xam yu bees nit ñi nan la ñu war a jëfandikoo. Euh, euh, mangrove bi gën ko reboiser bañ dagg bois bi. ñu mm-hmm. indi ay four solaire remplacer leen ko nga xamante ni dañu mën a continuer di wéyal mangrove bi ñuy gis ci ay résultat yu am solo. am na aussi benn problème bu ñu fi aborder léegi vraiment dama ñun dañuy rafetlu ci IUCN euh, li Sénégal def ay jéego ci constitution bi sax. fexe ba bind ci loo xamante ne nit ki dafa am droit. Mm-hmm. droit ci environnement sain loolu. avancé bu rëy la ci cause ci Sénégal te ñun dañ koy rafetlu dañuy rafetlu aussi décentralisation bi xam ne def nañ ko ba yóbbu compétence bi transféré ko ci collectivité locale yi ci lu jëm ci euh, environnement maanaam alam bi moo continuer jël euh, mhm, kii bi mhm. nga wax terme euh, Daniel bi waaye nag mhm. am na lu ci des tuuti ca dëgg collectivité locale yi jox nañ leen environnement mais moyens yi ñu leen waroon jox pour ñu mën a dëwee loolu. Mhm. loolu des na. mooy des loolu lu loo xamante ne loo xamante ne war nañ ci taxaw te dañ koy jooytu souvent. Mhm. dañuy ne moyens financiers d' abord mais surtout moyens connaissance maanaam li ma doon wax ci njëlbeen. Mhm. am ay nit ñoo xamante ne. màcc nañu ci loolu te mën leen ci jàppale. loolu vraiment. bëgg naa aussi loo xam ñu mën ko. déjà bu dee moyens yi manqué na foofu waxuma la ak nag bis bu ñu sàgganee. bàyyi dégradation bi yokk ba ñu war nag indi jubbanti bu boobaa la ñuy gën a sonn ndax xam nga defar ab digg yombul ah, n'est-ce pas dafay rek prouver ni jóg jot na lu wóor la loolu lu wóor la te li ma li wóor ba wóor aussi c'est war nañu bàyyi di xalaat ne état bi rek nag moo war a jóg mhm, parce que eh, man erreur boobu <laughs> wax dëgg la loolu bëgg naa ñu dépassé ko <laughs> dëgg la bu fu ñu toggee ba yaakaar ne état bi rek moo mën a régler yëpp loolu du sotti dëgg la ñoom it bu ñu campagne dinañu wax su ma faloo dina nu ah, ah. boo nee dinaa rek dinaa nga indi problème ñoom kenn du ñoom <laughs> jërëjëf Racine euh, professeur Tijani lan ngeen di xaar ci état bi justement par rapport ak luy gënal njàngale mi gën ko lawal ba xam-xam bi gën a law ci réew mi au niveau des moyens yooyu est-ce que foog nga ni mat na wala da nga naan rek lu bees la fii euh, il faut il faudra renforcer les moyens. waaw enfin façon naa ne on n'est jamais satisfait. Mm-hmm. moyens yu ñu am. mais dama bëggoon dellu si euh, mbirum environnement c'est-à-dire que faut que nit ñi xam ne ni. Mm-hmm. environnement tey c'est pas du question mode tey ñëpp ngi wax environnement changement climatique non. suñu dund ci environnement la nekk ressources naturelles ci environnement la nekk pollution de la pollution de l'eau loolu mooy déterminer suñu avenir et justement sur ce plan la man je trouve que état bi l'état n'est pas je dirais agressif maanaam mhm. tey jii naa jël quelques exemples je prends par exemple le solaire tey jii am na nu naaj si dëkk bi mhm. tey est-ce que am nañu usine de production de photopile solaire dans notre pays on peut pas tey jii nekk un pays ensoleillé toute l'année ouais. ne pas avoir maanaam ay gëstukat yoo xam ne yu xarañ yoo xam ne ne war nu mun a proposer des photopiles yoo xam ne ne qui sont adaptés parce que ni ñun ñun ñu xamul c'est que photopiles yu bari yu ñëw Sénégal mhm. elles sont pas adaptées au climat ce sont des photopiles yoo xam ne ne rendement maximum bi c'est à 25 degrés alors que fii température bi on est à 30 30 quelques degrés. Mhm. donc sur ces questions il faut que gars yi xam ne ne la recherche elle est incontournable maanaam gëstu au niveau euh, euh, dara bu mag bi. c'est incontournable il faut ñu def ko. il y a d'autres naa jox par exemple temps yi ñu ngi def usine de désalinisation. Hmm. nit ñaa ngi yuuxu on va créer des déchets déchets bi lu ñu siy def les gens sont là nit ngi ne duñ koy delloo si si géej bi kooku buñ ko defee dina rey jën yi hmm. alors que xorom soosu buñ ko jëlee am na ñaari possibilité ñu chargé ko yode di ko jaay maanaam sel yodé am na leneen sax mën nañ si defar eau de javel mhm. réaction chimique bu simple duggal oxygène pour créer si loolu yëpp c'est des possibilités il faut que état bi xam ne na bu nu bëggee loo xam ne ne c'est durable mhm. day créer emploi day créer richesse il faut que mu saxandikoo sur des résultats de la recherche sa c'est incontournable. Mhm. il faut ñu def loolu. et damay mujj ma umpalewul mës naa mës na euh, seq liggéey ak euh, ministre bi ñu dénk wàllu enseignement supérieur. Mhm. au niveau de la recherche quand même aussi def nañ ci ay jéego. je pense ni ñu ngi ci euh, d'ailleurs mës naa dégg président léegi am nañ ay ay chercheurs yu yu trouvé. non non non non El kooku il faut ñu bàyyi ko un chercheur. Mm. dès lors que yaa ngi def benn bataaxal maanaam lu ñuy woowee publication. am na loo xam ne trouver nga ko. ku nekk dafay trouvé ku nekk États-Unis trouvé na lii yow nga trouvé lële. donc nañu bàyyi di wax ne des chercheurs qui trouvent. léegi lan loolu lu nu manqué mooy. Mm-hmm. suñu résultat recherche. maanaam lu nu lu nu trouvé. Mm-hmm. il faut que état bi mettre en place des un mécanisme bu nga xam ne na. on puisse transférer justement les résultats de la recherche d'ici créer ay entreprise d'ici créer ay emploi très bien c'est important loolu moo manqué dans notre pays voilà très bien donc euh, dama bëgg a mujjee quand même si mhm. une chose mm -hmm. par l'érosion côtière ouais. et du territoire mhm. du, du, érosion côtière pareil il faut que ji man bind naa si benn article nee nañ il faut qu'on ait un national mhm. yoo xam ne ñëpp ngi si société civile état gëstukat yi ñuy suivre évolution parce que eh, pour xeex érosion côtière du se passe du ñëw rek def ay ay barrières def na am na dëkk yoo xam ne def na ay barrières ça n'a jamais marché mhm. te loolu aussi il faut que ñi ñi yeesi loolu mais ce qui va se passer. ni ñu koy xeexee scientifiquement wala boog techniquement. lan nga gis yow y' a plusieurs solutions. en ah. général li gars yi di gën a utiliser mooy def ay barrières. mais ce mm. que je dis toujours ñëpp xam nañ ne barrière boo boo def du yàgg parce que. ndox bi bu ñëwee énergie bu mu ñëwee. Mhm. lu yàgg yàgg barrière boobu dina daanu. Mhm. il faut que ñu actuellement ñu ngi essayer de monter benn projet ak allemand. pour essayer modéliser justement. modélisation mooy indi ñu xam ndox bi lu muy comporté wu pour di si indi ay ay solution Okay. mais loolu il faut que y a un travail de recherche bu ko war a def. Mhm. ça c'est important. très bien jërëjëf professeur xam naa ni tàbbi ci nopp euh, conseillère bi ma dendal ca ministère environnement euh, euh madame ci ci ci wàllu privé yi également parce que ñu ngi ci géej gi ñu ngi ci wàllu déchets yi mhm. waaye entreprise yi. Mhm. Euh, pollution bi ñu doon di sànq am na entreprise yoo xamante ni privé yi surtout est-ce que foofu tamit yéen a ngi leen di vraiment may gët ni mu waree pour ñu respecter ñoom it toutes ces normes là dafay jugee fu ne bu ñëpp dóorandoo moo tax du yomb ci moom. en tout cas El Hadj exemple bi gën a concret ci ni privé yi ah, ñu baal ma ci wax ji polluer environnement bi. mooy Beda Anne. waay Beda moom xam naa ni euh, waxam du doy. Mhm. état bi jógul di si def di si def ay jéego itam. parce que euh, bu ma fàttalikoo depuis 2008 je pense amoon na benn projet sur la dépolition de la baie de projet boo xam ne état du Sénégal daf ko lënkaloo woon ak partenaire am stratégique euh, union euh, agence française de développement. Mhm. banque bi leen doon servir euh, moo doon la banque européenne d'investissement <coughs> amoon nañ fa cinquante millions d'euros yoo xam ni c'était consacré à ça projet boobu mu ngi koy exécuter ak ak ONAS. bien sûr que direction de l'environnement et des établissements classés mu ngi ci biir si si biir ñi koy euh, mais maître d'ouvrage bi ONAS la. Mhm. dama bëgg wax ni rek soo ñëwee bedd aan puis am na benn reportage bu si tubaab yi defoon. nee nañ bedd aan dafa rafetoon c'était l'une des plus belles plages du mhm. monde. Mhm. tey boo demee bedd aan buñ la fa mayoon terrain doo ko bëgg. ndax lan ndax mode pollution bi mode pollution bi industrielle yi di fa def. mais état bi encore une fois ci li ma la waxoon dafa encadré par la loi yooyu yëpp. Mhm. état bi wax na industriel yi boo buggee installé nii ngay def boo rejet yi dafa dafa ko normé. Mhm. état bi dafa souscrire si ay convention internationale yoo xamante ni mënatul passer outre norme yooyu. donc tey mais dans l'application dans, le résultat. <laughs> mais <laughs> comme li ma doon wax sànq rek di nga gis koo xamante ne buñ ko jàppee lay soog xam ni loi am na. xam nga loolu euh, day dellu si wax bi ñu waxoon sànq. ay surtout wax ko ci plateau bi ñëpp wax ko. Mhm. ni dañoo war a def sensibilisation. man dam koy wax à outrance. dañ ko war a dañu war a agressive. Mhm. am na ku ko wax fii léegi dëkkal ko ci nopp nit ñi ko ci nopp nit ñi. Mhm. utiliser canaux de communication yi nekk si suñu disposition yëpp. pour nit ñi di xam. parce que tamit du wax rek mooy tax nit xam image dina tax nit xam jàngale dina tax nit xam mais ñun au ministère de l'environnement on a une cellule d'étude de la formation environnementale hmm. bi nga xam ni lëkkaloo na ak ministère de l'éducation nationale di dugal déjà sécurité curricula euh, école primaire yi hmm. donc euh, les principes du développement durable donc pour créer ay ay ay éco-gestes chez les enfants. Mhm. ñu màggaale ak moom je pense que ay surtout xam ne li may wax. parce que ensemble la ñu génnee d'ailleurs la bande dessinée avec la direction de l'environnement. Mhm. donc yooyu yëpp ñu ngi ciy ñu ngi ciy def mais je dama bëgg wax ni rek rejet yi am ci bedd aan bare na. Mhm. tey projet bi état bi teg di ko exécuter mu ngi soog a terminer phase étude yi rejet yi c'est plus de cent mille mètres cubes par jour te ay déchets yoo xam ni la c'est incontrôlé. état bi tey mi ngi teg benn projet boo xam ni dina ko permettre mu am mu récupérer au moins 33 000 euh, mètres cubes par jour yi nga xam ne dañ koy dañ koy saytu mm-hmm. euh, fexe na tamit ba jënd ay ay instruments yu mu jox privé yi nga xam ni à leur niveau déjà dañuy segg li ñuy rejeté ci maire bi je pense que déjà ay jéego la yoo xam ni mhm. foog tamit ñu encourager état bi ci loolu mu euh, moyens yu doyul mhm. Racine wax na ko il faut que partenaire yi techniques mhm. et financiers yi ñëpp jàpp ci pour mu pour mu dox mais dama bëgg wax ni état du Sénégal reconnaitre na ci constitution am droit wu sénégalais yi à un environnement sain loolu il faut ñu koy fàttali te nga xam ne mais pour état bi mënul amee yar ci gannaaw chaque sénégalais. pour loolu il faut ñun ci suñu bopp. Mhm. ñu bëgg tamit dëkk ci environnement sain. je pense que loolu ci ci ci loolu mhm. baax na ñu koy fàttali. que kenn amul droit mhm. agresser sa environnement morom. donc agressé bi du ay sànni xeer wala yooyu. mais sànni mbalit wala bale sa buntu kër jug ko ci buntu këru jàmbur. wala yooyu yooyu il faut ñu ñu bannir ko. bàyyi ko maintenant am nañ problème aménagement Sénégal je euh, euh, secteur privé bi dama bëgg a wax ni tamit état bi li mu mën ci ñoom pour dimbale leen pour ñu respecter normes yi mooy rek créer leen benn environnement bu ñuy wax incitatif mhm. c'est-à-dire wàññi ay taxifé wàññi ay kii fii mm. dimbali leen ba nga xam ne dañ mën a installer mm-hmm. et wan leen tamit ni que ku bëgg installer nii nga war a nekkee mm-hmm. mais code de l'environnement bi mooy suñu seule référence mm-hmm. tey jii bu nga xam ne moo organiser toutes de pollution et de suñu territoire da nga xam ne ku bëgg installer noonu nga koy foofu foofu ngay foofu ngay sukkandiku voilà bu ngeen wàññee taxes yi da leen kon ne di may gët parce que borom xar yaa ngi nii wax dina nañ taxes yëpp te benn xar yombagul waaw non non état bi bu mu jël suñuy xaalis ñun ndax taxes yi suñuy impôt la waaw buñ ko côté gi gars yi nañ leen topp may leen gët mais xam naa xam nga état bi dina ko def dina ba nga xam ni kenn ku nekk dina ci gis boppam te kenn du gaañu très bien ba pare finalité bi comme ni nga mm. ko bëggee nii di ko laajte sànq ba tey finalité bi mooy ñun ñëpp ñu ànd mm-hmm. dëkk ci environnement bu sécuritaire dëgg la waaw ñu ñu ñu bëgg ko ñun tamit <laughs> xam nga laago bi topp Afrique moom bu dee sax jàngoro ji ne non loolu du rey nit ku ñuul euh, je pense maa ngi doon wax affaire aménagement ni ñu dëkkee euh, Sénégal doy na waar dëkkin wi euh, monsieur Diouf ci wàllu aménagement station d'essence ci biir kër yi ba ci frontière nit ñi sax mais c'est extraordinaire cest dire yàlla yàlla na jàmm rek di am. xam nga euh, Alaaji Assane dafa am benn loi boo xam ni nga ko waxee rek. Mm-hmm. collectivité locale boo gis ngay département ngay commune daam lu lañ warloo sa environnement li naan le plan d'aménagement et d'occupation des sols. Mm-hmm. la loi constitution moo ko obligatoire maire bi wala président département def ko nga booy def salotissement booy aménager nga bàyyi fii nañ ko bàyyi pour garab yi la lii pour tool yi la mhm. lii pour euh, mala yi la mhm. lii pour kër yi la léeg-léeg nag yéen da ngeen di jaay lépp no du jaay da ngeen di jaay war a jaay non waxuma yow de mais léeg-léeg non man léeg-léeg maa fi nekkal sax ab la neex nga ne man ndax man ñoom laa fi kon sa mbokk yooyee léeg-léeg ñooy jaay terrain yi fa ñu war a def terrain ak espace vert nit ñi war na féexloo ñoo koy ko c'est-à-dire war ko jaay <laughs> benn maire Sénégal amul droit jaay suuf ah bi dafa leer am fi maire yu sant dëkk da ngay ñaan def lettre dama bëgg dëkk ñu dagal la hmm. nga fay ma ndax borin dañ koy fay loolu lañ lay laaj hmm. maintenant ñàkkut bu fekkee ku mel ni Adama Diouf ñu jox la nga dem jaay sa bopp loolu moo tax ñu naan jaay mais benn domaine national kenn amul droit jaay léegi monsieur Assane dama la ko proposition solution laa la ba proposé allez-y je pense que environnement dafa am solo boo xam ne ah. solution bu ñun rek yoruñ ko en tant que collectif local il faut des actions synergiques d'abord gouvernement bi woote naay code minier référendum chef de l'État le président Macky sal jox ne vision hmm. ressources naturelles dañ ko war a le plan outil d'impact environnemental bi. Hmm. booy usine booy tracé war ko installé fii. Hmm. ci localité bi dañ lay warloo hmm. étude d'impact environnemental. mais dans l'application de vraiment toutes ces mesures. mais dañ ko appliqué waaw man li ma gënaloon daal mooy ni ko bindee daal rëddee ko ni. xam nga ni ñu koy dundee ko ni. non dañ koy appliqué xanaa. voilà très bien eh, application dafa yaw a des. mais les services de l'environnement ci boppam. dañuy dañuy def ay amendes. def ay pénalités. di la jox ay taxes. ok fiscalité mooy mm. impôt bi ngay fay ci collectivité. Mm-hmm. mu ngi toll ci ni nga sa entre sa usine yi mu gën a toll selon le principe du payeur. Mm-hmm. pollueur payeur. Mm-hmm. fa may fa may jaaxle mooy ñi collectif local yi moom euh, daa am loo xam ne itam ci njàngal na ci dañ ci war a taxaw bu baax. Uh-huh. ci xale yi dès le bas âge xale yi ndaw yi. éducation environnementale. ci programme yëpp. ci ñun maire yi ak président département yi am nañ un programme de soutien. yoo xam ñëpp d'accord nañ ci. éclairage public. ci dëkk yi yëpp nañ def ay lampes solaires. Mhm. de économiser énergie économiser courant. loolu également ci suñu plan d'action la bokk. donc véritablement yaakaar naa collectivité locale quand mhm. ñu ngi góorgóorlu ci loolu. mais fiscalité bi dañ ko paramétrer. plus nga def say say solaire moins entreprise bi. fay ay impôts hmm. fay ay taxam hmm. loolu pour inciter entreprise yi hmm. pour que véritablement bu ñu ñëw ci côté local yi ñu xool ne war nañu préserver environnement ndax ñu ñëpp xeex bi ñoo ko bokk mais collectivité la mën na ko gouvernement sax mën na ko mën na ko fa may mujjee mooy le partenariat public privé gestion déchets bi ngeen wax ni tey bu fekkee man dama koy buub war koo traité man aw ma moyen pour def ko mais war naa avec une entreprise locale wala une entreprise nationale dans le cadre bu ma mu may dimbali pour ma gas gas samay samay centre d'enfouissement technique dimbale ma ci indi samay samay ay uti ma mën koo exploiter recycler waat ko mhm. loolu yëpp dafa laaj mhm. collectivités local yi oui. le partenaire privé mhm. l'État ensemble et la et la communauté. oui surtout askan wi ñu waxtaan ak ñoom parce que souvent dafa am bëggee indi centre d'enfouissement ñu ne dee daf ñuy jural. waxtaan bi manqué rek waxtaan bi waaw communication bi waxtaan bi moo manqué mooy moo des. mais yaakaar naa bu ñu leen jiitalee ci waxtaan bi. ñu def ko seen boobaa solution dina man yaakaar naa daal pour li ma naan la gouvernance verte uh-huh. mooy la solution mm-hmm. sur la gestion d'un environnement sain mm-hmm. gouvernance verte nag dafa ëmb lu bare bare bare mm-hmm. njàng bi ci la bokk xale yi ba le bas état bi li mu ci war a def ci ay outils moo def ko en place ñun collectivités locale yi li xam mooy suñuy cër ñu jox ñu ko te mu jox ñu ko dëgg nag ci mm-hmm. compétence mm-hmm. mooy boo amee sa compétence jox lay mooy ko yokk ay gérer ndax ça c'est important gouvernement bi def nay effort mm-hmm. mais des na ci ci fànn boobu véritablement très bien mais effort yi bëri na Serigne Assane parce que déjà euh, pour secteur environnement uh-huh. code forestier dañ ko réviser uniquement pour jël en charge euh, euh, axé sur la décentralisation Mhm. donc loolu principe bi moo doon dañu waroon dugal la responsabilisation des populations à la base. loolu ah. rek moo taxoon ñu changer code forestier. au mhm. départ mi ngi encore en révision parce que décentralisation ñu ngi ci processus. ñoo ngi ñoo ngi koy accompagner dans le bon sens. Mhm. état bi mu ngi accompagner également collectivités locales yi. parce que seen plan locaux seen plan communaux yi euh, sur l' environnement ak seen plan départementaux yi ñun ñoo ko defar. ñun ñoo leen ko defaral en partenariat mais mais c'est c'est ce sont nos services qui se déploient hmm. defaral leen ko et sur la base de quoi sur la base de ñun suñuy orientation parce que hmm. n'oubliez pas l'État mooy responsable euh, politique de l'environnement fii au niveau du Sénégal. Mhm. moom mooy moom moo war a coordonner. attention compétence transférée la. mais mais mais. comme amu leen moyen kay yéen tam bàyyi leen état jàpp ci rek. mais mais <laughs> <laughs> cela n'exclut ah, cela n'exclut pas cela n'exclut pas. rôle état bi mu booloo mooy doole. booloo mooy doole waaw mu continuer di ko di ko jouer. voilà ci kàddu yu mujj yi de yow yaay tëj yaay tëj madame Ndiaye waaw. balaa tëj il faut ma ma yeggali ma ah. wax lii mm. tuuti. ci ci ci problème mu déchets yi. Ah. xam nga gestion déchets yi. ma leeral la mooy kàddu yu mujj yi ci wàll wi. après ngeen tëj waxtaan ku ne wax say kàddu yu mujj allez-y <laughs> parce que waxtu wi jeex na. waaw baax na ma non non daaneel. Hmm? donc dama bëgg wax ni gestion déchets yi. Hmm. approche bi dafa globale. depuis collecte bi la ba ci recyclage bi. et que même même loolu état bi mayu leen yëpp ñoom collectivité locale yi. Hmm. daf leen ne même bu ngeen buggee recycler. il faut ñun ñu ñëw surveiller. ñu xam lan recyclage bi lan la jur. te fi ngeen di recycler est-ce que amul dommage ci nit ñi. parce que même loolu état bi bokk ko ak collectivité yi. Mm-hmm. partenaire collectivité yi la rek dans ce sens. Mm-hmm. donc xam naa ni suñu amee temps. <laughs> dinañu gën a ko gën a yaatal li sama xel nangul mooy yéen du ngeen du ngeen ay adversaire ci wàllu. déedéet comme askan bi ngeen di liggéeyal normalement waaw. mais ni ngeen di waxee yéen déet ñu na moom moom xaw a jaaxal. en fait compétence mooy. ñoom transféré gi tekkiwul état bi di nelaw ni gëmul. déedéet dañ ko bokk c'est à la demande c'est une compétence partagée d'ailleurs. Oh, ok en réalité très bien voilà. et puis état sax moom dara du ko wàcc ba mu. ndax moo moo njaboote ñëpp. voilà collectivité yi. Hmm. am nañu responsabilité. Hmm. uti ay partenaires. parce que dañu leen créer ñoom commune yi ak département yi. Hmm. pour suqa suqali. Euh, euh, population yi à la base donc am nañu liberté boobu. Mm-hmm. am nañu boobu liberté. c'est important parce que ni donc partenariat public privé bi muy wax loolu yàqul yàqul dara. Ah, ñu ñu topp ren bi rek ku ñu kàddu yi mujj ci waxtaan bi nga xam ni moom lañu namal tey. Euh, soxna Aïssatou après ñu jox say càmmiñ. yaa ngi doon wax sànq ci wàllu aménagement du territoire am na solo. Mm-hmm. bu ñu jàppee ne Sénégal nee nañu ci fukki réew yi nga xam ne ci Afrique moom moo gën a menacé ci changement climatique ci la ñu bokk. donc war nañu xalaat aménagement du territoire mhm. bu ñu jëlee dakaar tamit gis nañu érosion côtière bi ni mu fi def euh, professeur Tidjani mu ngi ci doon wax léegi mhm. loolu tamit dafa war a tax état bi def ay mesures yu fermes ci occupation du domaine maritime national mhm. je pense que ne loolu am na solo ñun ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy wax war nañ ci def ay jumtukaay ba nga xam ne au delà observatoire bi nga xam ne professeur Tidjani mu ngi ko doon wax te mu am solo. Mhm. il faut que loi sur le littoral tamit ñu voté ko. ONG yi ñu ngi ciy wax boobu ba léegi. Mhm. loi bi tamit bu ñu ko voté rek waruñu yem foofu. il faut que ñu appliquer ko. il faut mhm. que état mettre les moyens ba nga xam ne loi yi ñuy teg. nu ngi koy appliquer. puis def suivi ak évaluation di xool yan rëkk-rëkk lay am moo ci am ak naka lañ koy mën a jubantee mhm. ñu ngi wax gouvernance verte man dama ci yokk et inclusive maanaam du état bi rek ak collectivité yi waaye état bi collectivité yi société civile ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jagleel politique bi il faut ñu am cadre boo xam ne dañ ci mën di jokkoo di waxtaan bu dul loolu bu état bi tegee politique te communauté yi euh, approprié wuñu politique bi tamit du ñu dem fenn du dem dëgg la c'est important nit ñi il faut moo tax communication am solo parce que nit ñi il faut ñu leen di gindi mm-hmm. te ñoom it ñu ñu ñu ñu ñu neex a waxal nag parce que souvent ni duy gérer nanuy doxalee ci mbedd mi loolu wax dëgg yàlla ku ne xam nga ni des na euh, professeur kàddu gu mujj gi dama bëgg daanee si quelques phénomènes environnementaux yu am suñu dëkk yoo xam ne ni ñu ngi koy seetaan uh-huh. am ñoo xam ne wax nga ko sànq te am na ay station d'essence si biir kër mm-hmm. station de d'essence boo ko tegee fenn ñëpp xam ne jàngoro yu mu mun indi gis nañ fi station d'essence bu nekk si buntu école mm-hmm. boo xam ne ne def nañu ay études yu nga xam ne ne bu amee incendie nu ñooy blow over mun na dem rey lor ñu fa xale yooyu ñu fa nekk. Mm-hmm. état bi war na jël ay matuwaay. pour def ce qu'on appelle des mieux coupe foo yoo xam ne bu amee euh, problème yooyu mu bañ a lor doomu aadama ça c'est extrêmement important. Mm-hmm. nous avons également euh, euh, le le problème des des antennes téléphoniques am na benn jànq bu moo benn bés. Mm-hmm. dama professeur man de dafa am benn antenne fu ma nekk ni soluma yëre parce que rayonnement électromagnétique ba nga may lakk. ñu ngi koy seetaan. Mm-hmm. actuellement da nga gis ko am immeuble loué antenne mm-hmm. te ñëpp xam nañ ne rayonnement électromagnétique mun la lor doomu aadama. comme téléphone portable mun la lor ñu ngi koy seetaan. ñu bàyyi ko ngi koy fa ñu ngi bàyyi. Mm-hmm. lu ma bëgg mujjee c'est mooy gaz et pétrole. tey jii ñëpp ngi wax affaire gaz et pétrole. il faut que nit ñi xam ne ne suñu dernier référendum bi constitution bi dafa ne toutes les ressources naturelles appartiennent au peuple. maanaam. waruñu mun a def dara loo xam ne na dafay gaañ askan bi par rapport à la gestion du gaz et du pétrole mm-hmm. tey jii est-ce que par rapport au gaz et euh, au pétrole population bi am nañu une implication vraiment totale bi nga xam ne ne mm-hmm. ñëpp a koy ñaawlu par rapport à cela il faut pas a takku ji ku ñoo ngi koy ñooñu fa la toogal ñoom ko war a wax assemblée hmm? nationale bi di législature bi. Hmm? ñu taxaw ni mu waree ba séddoo bi jaar yoon. Hmm? ñun jariñoo ci pétrole bi. ñun lu mun mooy wax bind. non je je parle njariñ. njariñu pétrole bi quand on am amu réew dañ koy séddale am amu réew. dañ koy séddale mu yegg ci ñëpp. parce que aussi n'est-ce pas. c'est njariñ ah, que aussi non c'est ñu xam benn affaire que ni ñu ngi am pétrole ak gaz. Mhm. on fera partie de d'un des pays les plus pollueurs au monde. parce que gestion du pétrole da ngay polluer. Mhm. donc il faut que ñu jël ay matuwaay pour que pollution boobu ñu wàññi ko. Mhm. mu bañ a doomu aadama mu bañ a lor. souvent dañuy wax ne société yooyu dañuy indi dañuy ñëwaale ak ay matuwaay yoo xam ne. ni ñu ni est-ce que c'est vrai d'ailleurs. non aujourd'hui. non dëgg la wala du dëgg. non dëgg mën na Euh, pour société bu nekk. Mhm. am na ce qu'on appelle le management environnemental. ISO 14001. Mhm. boo appliqué euh, démarche boobu lu ngay lor euh, environnement bi vraiment da nga koy wàññi. lu néew lay doon lu néew lay doon. loo tax tey jii état bi ñu ñu ngi koy rafetlu état bi teg na aujourd'hui benn structure. Mhm. le bureau de mise à niveau. bu nga xam ne nit mooy accompagner entreprise bi. pour justement mu wàññi justement. son son impact sur l'environnement. ah très bien jërëjëf professeur monsieur Kane. jërëjëf. man daal vraiment li ñu wax léegi ci soxna Astou wax ci li jëm ci loi littorale bi moom laa bëggoon wax. Mhm. dafa loo xamante ni daf ñu soxal ci UICN ba nga xamante ne. Uh-huh. ñun dañu am jàpp euh, def euh, ak suñu kuréelu député yi fa nekkoon ci ñuy liggéey ak ñoom muy repes mhm. te président Lamine Thiam maa ngi koy nuyu. Mhm. nekkoon nekk président am euh, ñu fexe ba ñu dem waxtaan ak ñoom député yi. ak nguur gi pour mën a taxawal defar une loi sur le littoral ab dañuy jël sax loi bi seppi ko ci loi yi ñu leen proposition de loi yi leen joxoon ou projet de loi yi ñu leen joxoon. Mhm. yóbbu ko ci gox-goxaan yi wax ak ñun ñi laaj leen lan mooy seen bébét lan lañ ci xalaat ñoo ñu dugal ci seen xel wax li lii lii lañ ci soxla lii ak lii ak lii ñu delloowaat ko ci assemblée nationale. léegi ça fait quasiment depuis 2010. ñu ngi xaar ba tey. Mm-hmm. loi boobu munuñu ko voté. waaw juróom-ñaari at bëri. na. Mm-hmm. wax nañ ci ba keroog sax. yàlla xam na ne toog nañu ak premier ministre ñu wax kook moom. mu mm-hmm. jox ñu ci ay assurance yu doy. nañu loolu affaire foncier bi moo taxoon mënul woon antu mais dinañ ko def. te loolu dafa di lu am solo parce que loolu mooy tax ñu mën a régler problème bi. de façon systémique doo xamante ne lu laal fii coom fii non boo demee ci dëkk yi demal Brésil demal partout. da gis nu ñuy aaree seen côte bi. la plage dafa am mm-hmm. ñoo xamante ne am foo xamante ne mun mënuloo ci tabax mais aujourd'hui boo demee ci corniche bi oto fàttu na. Mm-hmm. mënutoo gis sax géej gi. est-ce que loolu jàddu na. dëgg la loolu citoyen ñoo ci war a taxaw. Mm-hmm. en tout cas UICN mu ci jàppalante nguur gi. ak député yi yaakaar nañ ne j'espère bien que. assemblée bi di ñëw. dina taxaw taxawaay boobu bi nga xamante ne loi boobu dina mën a jàll. te mu mm-hmm. nekk ndam ci Sénégal. parce que loolu dina yóbbaale li professeur Adam si waa dëgg la pétrole bi offshore lañ koy def. Mm-hmm. mais war nañu fexe ba mu bañ a am ay conséquences nuisibles ci. kii bi ci ci mhm. code bi n'est-ce loolu yëpp ci la ci la bokk observatoire bi ci biir loi bi la war a nekk léegi ngeen ci war a tàmbalee waxtaanee ñu boole ci ñëpp loolu am na lu ko mooy dafay annihilé yàq liggéey bi ngeen liggéey yëpp yéen pour la protection de def nañ ci li ñu ngi leen di gërëm en tout soxna Aïssatou moom euh, temps d'antenne am jeexoon na mais mu ngi laajaat bon ah. am ay surtout du ma la bañal dara xam nga ni. ayca <laughs> li ma bëggoon yokk tuuti <laughs> mooy ci mbirum pétrole bi xam nañ ci àddina bi yëpp ñu ngi wax. mbirum ah. transition énergétique. Ah. ñun li ñu yaakaar mooy ci bénéfice yi pétrole bi war a indi. nañ ci dindi loo xam ne pour pourcentage boo xam ne dafay mm. jàppale Sénégal ci mbirum énergie renouvelable ci mbirum mm. transition énergétique mm-hmm. loolu war nañ ko boole ci waxtaan bi ñu sóoraale ko ba nga xam ne loolu dinañu permettre du mm-hmm. ñu jël suñu euh, énergie yëpp def ko ci énergie fossile yi mais mm-hmm. dinañu mën a tamit booster secteur énergie renouvelable nga xam ne mooy bu énergie bu set wecc bi noonu lañ koy waxee ah sëñ Diouf waaw Euh, da ngay bëgg ma fàttali union européenne ne ñoom seen paas jeex na wala. <laughs> waaw ah waaw jaajëf dama bëggoon insisté benn carré. gis nga balaa ma clôture. gis nga code forestier bi. baax na trop. parce que c'est important. ñun diggante code de l'environnement. ak code forestier yëpp benn yoon. ndax dafa dafa dafa lëkkaloo. Mhm. mais yaakaar na Alassane il faut ñu ñëw. Mhm. ci benn clause. benn signature boo xam ne dañ koy teg gouvernement ministère yi signé collectif local yi signé. usine entreprise yi pour la protection de l' environnement lépp loo xam ne yow daf nga ko ca rek. nga signé dañ ko réparer gouvernement bi def na ay loi wat na code l' Afrique def na référendum def na ay code. mais usine bi nga xam ne mu ngi implanté wu Kayar wala mu ngi implanté Ziguinchor wala feneen na signé ne danaa fay lii naa def lii naa ko réparé. borom oto bu màgget bi ñu boo amee plus de dix ans ne dañ ko traité léegi. ñu seet ay aman loo xam moom lañ ko war a def ba pollution bi mu def ci ginnaaw mu war a mën a préserver wu ñun collectivité locale ñu jël ay engagement pour solaire yi également ñu ñu mën ko préserver dans le cadre de la voirie mhm. donc charte boobu moo tax dans le cadre d'une gouvernance verte inclusive nag ñëpp mhm. bokk ci ñëpp ci c'est très très très important mais kañ ñuy jiital nag mooy communauté donc je pense que lëkkaloo boobu dëgg la dafa am solo man collectif local dama war ma état lañu. Mhm. on est ensemble au contraire. Mhm, mhm. compétence <laughs> environnement ressources naturelles compétence partagée la. dañuy am lu ay cër bu ñu ci jox rek mais ñoom tam ci ber seen waar. bu ñu lëkkaloo nag incha allah rabi. nañ xeex day day gën a tee baax rek jërëjëf ah Diouf merci beaucoup <laughs> colonel euh, Banel Ndiaye kon nga waaw ci kii rek waaw <laughs> mu gàtt rek. principe boobu mm. loo yàq defar ko. Mm. pollueur payeur. dafa consacré. Mm. voilà. bañ a yàq gën de bañ a yàq <laughs> a yàq gaa moo gën mais yàq boo yàqee da ngay fay mm-hmm. eh, autour li nga yàq loolu dafa consacré Sénégal dafa adopté ne naa la ay convention internationale boo xam mm-hmm. ne daf ñu ko sant ñu dugal ko transcrire ko ñun ci suñu code te usines yi xam nañ ni que li nga yàq à la mm-hmm. ngay fay donc c'est encadré par la loi donc mu ngi fi déjà seen balaa ngay tëj nga may ma ma remercier tam suñu partenaire bi Union européenne euh, te moom partenaire stratégique bu ministère de l'environnement la daf mm. ñuy assister si suñu programme yu bare. Mm-hmm. d'ailleurs actuellement mu ngi ñuy assister également ci réforme ministère de l'environnement. parce que ah. comme ni ma la ko waxee rek. contexte bi dafa évoluer donc il faut ñu adapter. Mm-hmm. ministère de l'environnement si besoin sénégalais yi. donc ci loolu la ñu nekk ñu ngi koy remercier bu baax. nga may ma tam ma remercier le ministre Abdoulaye Baldé. Mm-hmm. ministre de l'environnement et développement durable. parce que tamit bi ni nga ko waxee yëf yi dafa gaaw ba nga xam ni Sénégal xëy na bi ngeen di tënk seen kayit yooyu ci environnement pétrole feeñagul woon bu yóbboo ngeen yokk matuwaay yi de ndax xam naa ni les grands pollueurs a ngi ñëw nañ ñu dimbali rek wax dëgg yàlla pétrole bi ak gaz bi moom <laughs> état bi jël na ko à bras le ah très bien anticiper waaw voilà xam ngeen ni yeneen ah, en tout cas virage la boo xam ni daal moom premier responsable mooy président Sall moo volant ba premier ministre ca sonn nan de wax dëgg ah, yàlla réew mi bu ñu xëyee ba jant soo ni ñuy waxi lekk la ñuy daw ak <laughs> waa ma taaleeg yooyu donc mbay mi gis ngeen donc pétrole boobu ak bi ngal la ngal la nan ñu dimbali suñu kilifa yi ba mu am njeexite suñu suñu poos yi transition énergétique bi mhm. moom defe naa président ah, ah. moo ñu ko gën a mokkal sax ñun très parce que mhm. Aïssatou mhm. man ak yow ñu ngi woon Paris bi président di wax keroog euh, bu ci ouverture conférence des partis sommet de Paris keroog noonu président moo doon sixième personnalité bu wax devant plus de cent chefs d'État état li mu fàttali woon man maa ko fàttali journal télévisé mm. encore bi ko président waxee ba pare mm-hmm. président dafa ni dañu am droit wu développé ñun développement ñun tam dañ ci am droit mm-hmm. comme ni ci pays développé ñun participer wuñu fi ñu toll nii ci mm. ci changement climatique mm. pollué wuñu àddina bi ah mais pourtant ñun effet néfaste yi suñu kaw la gën a la gën a daanu mhm. donc il nous faut ñun tamit ñu adopter ay technologie propre mhm. si biir technologie propre yooyu benn mu ngi si ne mënatuñu continuer di utiliser énergie fossile bi mhm. énergie kii euh, pétrole euh, bi comme niñ koy utiliser léegi il faut ñu renouveler utiliser les éléments de la nature. très bien donc ci biir loolu teg na <laughs> teg na une agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie madame Ndiaye kooku beneen émission lay si <laughs> uh-huh. uh-huh. ménages yi uh-huh. huit cent mille ménages hmm. agence pour l'économie d'énergie <laughs> changé na lampe yi ci biir kër yooyu defal nañu ay lampe à basse consommation contrairement à lampe à incandescence yi fi amoon nga xam ne dañu dañu énergétivore léegi plaidoyer mën nañu ko eggale ci biti lay gërëm en tout vraiment infiniment merci beaucoup <laughs> merci colonel euh, Gogo Banel Ndiaye euh, conseiller technique ci ministère environnement ñu gërëm bu baax euh, monsieur Adama Diouf président union des associations des élus locaux du Sénégal professeur Adam Tijani di kon kii sanc institut des métiers de l'environnement et de la métrologie responsable master professionnel ba tey ci wàllu environnement soxna Aïssatou Diouf moom mooy chargé du plaidoyer des questions environnementales ci INDA jërëjëf soxna Aïssatou également Racine Kane ñu koy gërëm bu UICN UICN Union internationale pour la conservation de la nature lépp luy càmm teg jaww ji kon yéen ñu doon teewlu it waxtaan wi également ñu xam ne tey jile rek environnement am na solo lool mbokk yi dañu war a dund fu sell fu neex fu bakkane ni nu koy fekkee ca sunu mbokki tugalee bu nu fa demee bu ñu naanee café sànni ca balit ma n'est-ce pas kenn du sànni banaana ci bedd mi kenn du dawal woto boo xam ne da ngay romb ñu foog lépp buñ ko moytoo rek euh, dina baax ngi leen di gërëm mbokk yi gërëm Union européenne lëngoo bi la woon ak télévision Futur Média ñu fanaan jàmm Thank you